waaye gerte bi neexul. gerte ah, bi neexul da waaye du kii. yow comment kàr bi ngeen def kooku loolu la nekk. sama gerte solo xamuñ ci duggaat. mu wér da nga may de nduguma jeex na yëy nga carotte gi ba mu jeex daanu naa jógaat naa gerte gi doo ma ko yëyal yëgoo ma de doo ko toroɗo wawa ça va nii. waaw gis naa la gis ngeen. waaye maa ngi fi. yaa naan maa ngi fi nii. xanaa xaalis maa quoi. yow daajal. daajal waaw rajo booy tawal. non xoolal eh. jot ah léegi yow eh maa ngi si ginnaaw fële yow. waaw waaw waaw après après incha allah moom ñi maam war a maa bëri ci doon incha allah. Mhm. ça va bien. moo dum nii. eh ah tourne na tourne na tourne na tourne na nii mel na ne tourne tourne tourne. Ah. mais naw naa ne. maa la rafet non mais yow su ma la gisee. Ah. sama xel di dem ci de bindu Rasul. ayisa képp ku tudd Fatma ci àdduna dama koy bëgg. man Fatma ka mu dal rafet ni. Hmm. maa la ko wax. waaw waxal dama bandi ah. waaw ko ji fi nuyu sama yaay maa koy nuyu ma ñàkkal ko ñàkkalu ma la kees sax jamono ji ñu toll jigéen da ngay foog sa poñi ne jàng liggéey ma yaay ko yow yow ma ne sax ñu nekk di bañ bañ bi sama jàng ne yaay ko dégg yow lu nekk ma ne jàng ñu nekk di bañ bañ bi sama jàng man sama yaay ko ma sama papa bubu ku du ci waar gi day ñëw bul ko sama njaay mi yow léegi ma ana jur ma léegi maa la jur ci sama biir bi duma la bëgg ndax jigéen ñi ngay àndal bëgg naa nga toog nii waaw ay jël toogal mère jox ma foofu benn mbuus njëkk waaye bu juróom la. jox ma foofu non maa ngi ñëw jox la. maa ngi ñëw jox la. bu loolu moom daanu di daanu waat ko ko man. man yéen a wër ah man yéen a wër lépp loo gis yi man ci kaw ba jur ci la yàgg moom. yow man mii. maa la ko wax. loolu neex na. billaahi. léegi sa yaay na. jox ma benn garabu juróom. <laughs> indi juróom. mère jox ma foofu benn garabu juróom. mi mi wee daan adu bu joy ah o yéexi wane li ma aari dara doo fi jël. te yow yow yow lan moo tax nga ñëw ba fee nuyu woo ñu eh ah mo yaay buy yaay buy gis nga sama amee gan boo xam ne da nga koy teral gis nga barki rasule buy yi ne sa doomu sa doomu wuju barki rasule gu bi cagaaj ñoom ñëpp gis nga ko be cagaaj pour am na ka cagaaj daal ala pot sukkude suka debbo han gadda mo nder placé anda ɗo bamma immoto anum ko kalko ɗam fotinaka yaay million la bëgg ma am kër bëgg naa nga am xarit bëgguma xaritu jigéen xaritu góor laa bëgg yow ko la ci rek muy mel ni wul ay wul ay nit yow yow yow yow yow yow jugal jugal jugal taxaw jugal taxaw jugal taxaw tourné mais xanaa gis tourné bëgg góor ak man yow yàlla tere góor bu sama doom xëy sol tubéy yow nga xëy sol tubéy ci ëpp dama xamul man su ma amee gan lu la ngay xay sama gan yi Hey, hey, git, git, kau, dili. Woi, ada kayak mampu nang. Tolong tidak ya, bay. Woi, ya boleh kalau main kalau nanya ke suara dah. man dama amul jamono du metti ma ma ali bu góor jantal ma war a joxe diiru ma de diiru ma jamono jotee rek la naajo

benn laxas bu ci manqué di nga fay. waaw wax ji bari. waaw loo dem baax na loo dem loo dem baax na loo dem te defoo ko baax na dafa lu la nekk maa ko. mais sa yaay ne ngeen dëkkee. yaa sa yaay xanaa du ngeen jubóo mu. Hmm? yaa sa yaay du ngeen jubóo mu. toro de daf kay xari benam. duma ak moom. ma jox ko. dégg nga nag moom wala. doliwaat daal. doliwaat daal. te ñu ko yemale foofu li si des nga àggale kër ga. man damaa ceege de. waaw ñu def noonu waaw waaw kon ñu def noonu. waaw waaw nekk si jàmm rek rafet na. incha allah naa la xaar waaw waaw ma delluwaat sama boy Koobay. waaw. dem na nga def bàyyi ba bi ah ah waaw xaar ma ci demaale yow de ci kanam yaay def waaw ci kanam yow moom yow moom yow eh. yow boo ñëwaat def fi beneen yoon ah kay moom la ah, ah. waaw. wax ma bani nan lay doxee. Ah, nan la bani dee dox xolal. <laughs> Eh. di jëmal di jëmal waaw mooy loolu eh. waaw. yaa may mbëkk ndey ay bandi nañ leen di wax rek ana ana xar yi. man dama ngeen nekkul ci kar laay wat. boo bëggee kar da ngay dem wuti wuti wet bi dem sànni. yow xam nga yow bañ la bàyyi ba tey liggéeyoo yow. lan la lan la kii dafa soof waay. xar bi tuuti tuuti tali bi rey ko astafurlah ma naan tali bi sax oto yi. lan la wax léegi léegi nee na talul lan. talul xar yi nee na léegi lan la dal. doxaan bi mu xale bu àndoon japonais bi fi nekkoon sax. wuy ma wuy ma yoroo yoroo yoroo. xoolal wuy ma. fii du fii du bërëbu doxaanukaay dégg nga kii dañuy jug ci mbiram sax yàlla waxal fii du bërëbu doxaanukaay dégg nga booy doxaan nga dem ba sa kër sa nga doxaanee foofu wuy ma kaay mool la kaay <laughs> kaay mool la ah dara moom mooy def bu dee ñun fi lañ taxaw waaw jugal jugal fi jugal fi jugal fi jugal fi eh, eh ma dóoraale baal ma damaa tiit foo ñuy jug ci mbiram